bokk na ci jaamu yàlla yi bi ci gën a foor mooy sëy na bi dafa toog saxaaba yi ñaari giléem romb su jóot continuer seen yoon saaba yi ne ko ñi ay mala lanu bàyyil ñu lay sujootal rasul ne su ma doon digal nit muy sujootal moroomu nitam kon soxna laay digal mu sujootal boroom këram diba nga neeri dem loolu yaay moo koy liggéey jigéen ñi na ngeen doo ko góor góorlu góor ñi na ngeen yërëm jigéen ñoom itam nañ leen yërëm baax ci ñoom la yam waaw baax ci jigéen ñii la yam kon ngeen góor góorlu pré préparer seeni njaboot liggéeyal seeni doom ba ëllëg sen ben dom du jaaxle dañu wax ni borom day ju liggéey bu naree fande ginar lay reeree ah wa tekki lu sedd tek kilu mu tekki lu tang doxantu ñew nelaw kon yeen wajal len senin njaboti njabooti ëllëg yalla yàlla dafa leen jàmm te yowmal mal nak bisu aljana mbaa yëg ngeen ni aljana magge du fa dugg rasul dafa tok ben mag ñew ne ko waw mata saatu kagn la yowmal mal nabi ne ko loga ko préparel mu ne ko xobbulaahi wa rasulihi yow xiyaam daal li ma ko waajalee mooy bëgg yàlla ak sayyidina na nabi ne ko mais yow doo màgget du dem aljanna ndaw si jooy mu ne ko màgget du dem aljanna aljanna bu ñu demee góor ñëpp 35 ans la ñuy am jigéen ñi am 25 ans waaw jigéen ñi mag ñëpp dañuy wàññeeku ñëw te jigéenu uurul ay ni ya fa ne di ñu tippoo yéen jigéen ñi jaamu yàlla ba am ngërëmal yàlla yéen yéen la leen di gën ñoom ñooy taxaw di leen ñee ndax ñoom yàlla leen bind ñu rafet lool ba leen foofu pour nun pour nun ah ah pour ñun la nag pour ñun la waaye foofu nag fiiraange amu fa yàlla dafay dindi xolu maanaam luy naqari doomu aadama amul àjjana loolu amu fa war a yéen jigéen ñi yéenay gën óor ay nii yéena leen di gën fuuf yàlla di leen teral nga ne ko yàlla sama jëkkër jama neewal nekkaloon ci àddina laa bëgg nga delloo ma ko yàlla la muy noonu man kat Muhammad ibnu abdullah di kinan yalla la yoni kon yow kilifa nga dama amone problème juuni beug nga ñew fajal mako ñol njool yelbu lamb posia temer na ca mu gene ne ko li nga fekkam ana soppi ñol bi ma ya kullu waa ji teg ci ay kàddu yu ñaaw ne ko xam nga ne yàlla yónniwu la sayyidil mujaahidiina majadat kullal waraaya Omar ne bërit Alioune jóg saxaaba yi ku ne gàddu jaas yi njool makk ne toog leen bàyyi leen jàmbur njool makk ne toog leen bàyyi leen jàmbur oh. na bi jàpp ci loxo waa ji yóbbu biir këram. laka mujizaatun ubbi gaal ga génne manto ba jox ko génne grand bu ba jox ko génne bot ja jox ko di génne di ko jox ne ko benn rek boo ko jaayee jaaral ci marché bii di nga am junni bi nga soxla li ci des maa la ko may li wacci lay taala te bul jaar côté bii saxaaba yaa fa ne dañ laa ëmbal biiru nooneel buñ ko wasinee sa kaw nga fanaane alaaxira jaaral nii dem ca marché ba jaay ko te dem ñibbi te bu ëllëgee del wax ndànk dégg nga waa ji dox ñaari patànk yi nagam mu ne ko xam nga diw na bi ne ko dama koy dégg mu ne ko man la maa ëpp alal ci àdduna bi li ma lay laaj soxlawu xamuma ko dama la laajte ñu ni ma kenn du la fekk ci mbooloo ba sëkkërtël la ba gis sa jikko ju ñaaw parce que amuloo ko kenn du la fekk nga wéet ba sëkkërtël la ba sa jikko ju ñaaw parce que amuloo ko may xool loolu dëgg la am du dëgg waaye yow a an laa ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulillah Makka toogaat ci biir jàkka ji ak saxaaba yi. benn waay dugg si fekk ma bi toog mu tekki tubayam rek ñu baal ma ci waxin bi su ma nee tuur ndox xale yi xamuñu muy sow ci jàkka ji. saxaaba yi jug na bi eh taxaw leen kuy tuur ndox kuy saw boo ko dogee mën na koo feebar bàyyi leen ko mu àggale li muy def. ak civilisé. sa turandoo kenn du moom. njool màkka ne kuy kuy tuur ndox kenn du la dagg bàyyi leen ko mu àggale toog leen saxaaba toog waa ji tekki tubayam di tuur ndox ci jàkka ji def nii ba pare takkaat tubayam xool na bi wan ko ginnaaw génn jàkka ji na bi ne saxaaba toog leen ba kenn jug jug moom ak jëkk waak taar waak mbaax ga daal di meebo dab waa ji ne ko eh taxawal mu taxaw mu ne ko innama bunniyal masjidu li yi laalil bawli dégg nga jàkk bi ni koy tabax dañ ko tabax pour julli tabaxunu ko pour tuur ndox boo bëggatee saw nga dem ci àll ba fii pour julli la dégg dugg ci jàkk ji ne saxaaba yi raxas leen jàkka ji laa maa u mutlaq ñu tuur raxas Omar ngay buftandiku àll yu ne ngay buftandiku ana waa ji waa ji taxaw xool rasulullah yi di ko xool ñëw daanu ne ko dara yóbbuwu ma loolu dama doon xool yow laam du yow ndax mbaax wax nañ ma ne ci yow la ne ñu ni ma da ngay jéggalee ko jëllale ñu ni ma da ngay xam dara ba noppi bàcci ñu ni ma mbaax ci yow la yem jikko ju tedd ci yow la yem may xool dëgg laam du dëgg waaye dëgg la yaa gën a baax ñëpp yaa gën a yiw ñëpp yaa gën a tedd ñëpp gor yaa leen gën di gor إلا الله وأشهد أنك رسول الله يلا نقول لك لو كان ما يموين رسول الله فبما رحمة من الله اللي انت لكم ولو كنت فذا غليظ القلب لانفضت عنهم واستغفر لهم وساورهم في الامر لك معجزات كل الورى فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين لك معجزات انزلت كل الورى yàlla nee الله ko ci sababu الله minallahi bu tukkee linta nga nooyee lahum ñeel leen ñoom yow rasulullah yi Omar yàlla ne ko boo nekkoon di ko xat xol baa nga nekk di ko gaaw a mer kon lii nga am lépp doo ko am kon ay kéemtaanam lottuloo na mindee moom rasulullah yi waa ana bëgg rasulullah yi وخلين صلى الله عليه وسلم وخلين صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما أبدا على